di dolle yi rek sant mboolem ñi nga xamante ni teew nañ fi ak euh, xarit yi mbokk yi am di jàmm yi te di ci yital nag suñu kilifa yi tedd yu baax yi nga xam ne safoo lii ñuy def moo waral lu is bu tarixee nekk ñu ànd ci ak ñun teewe bis bii ñi ngi leen di ziyaare bu baax di leen jox seen wàccuwaay euh, sëñ Fallou Galas mu mel nii ziyaar mbaax la ci yoon wi ndono la ci yoonu murit lu dëgër la ci lislaam bokk it ci yi nga xam ne amul benn jamono bu ko murit yi bàyyi musuñoo wax ne crise sàngam dafa am ba murit yi bàyyi joxe àddiya musuñoo wax ne jamono sàngam dafa naqari ba murit yi wàññi ni ñu doon ñëwee ci sëñ Tuubaa musuñoo wax ne bekkoor wala maral wala benn gàllankoor am na ba dox diggante taalibe yi seen diggante ak sëñ Tuubaa kon nag tey bu Hizbut Tarqiyyah jógee jëm ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mboolem murit yi am ci mbégte am ci cawarte ànd ak moom jëm si ci day wane ne kon lawoon démb fas nañu yéene mu dekkiwaat tey xam ne murit moom diggam ak sëriñam joxe rek ba du desee dara na ko Cheikh Ibrahima Fall waxee woon Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ne ko na mel ni daay gu jaar ci màngub noor kon nag dongo yooyu noonu la ñu fas yéene fekk si tey ji Cheikh Mouhamadou Mountakha bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi yëkkati kàddu yu nuyoo di ko jaarale ci yow mu jaar ci sama bokk yi nga xam ne ñoom laa fekk fii mu di sëriñ Ahmadou ture mi nekk sama càmmooñ euh, sëriñ Mor Jaxate ak sunu jarbaat sëriñ Gànne Mesere Maxtaar nuyoo boobu nag dana koy jàllale ci jëwriñu liggéey bi ki nga xam ne sëriñ Touba moo ko tànnal boppam mu di sëriñ Yuusu Jóob yàlla na ko yàlla sàmm sàmm mboolem ku mu àndal dolli seeni xéewal ba liggéey bi ñu àggale ko fa neex sëriñ Touba may dog ngànt tuuti nag ci bi may dugg sama xel def na yar ci sénéraalub sëriñ tubaa ba jàmbaar ja nga xam ne ay waxam weddi wut jëfam jëfam weddi wut ay waxam mu di sëriñ aatu Diagne yaakaar naa ne kero ba mu jaayante ak sëriñ Touba ba kero ba ko sëriñ tubaa wooyee mu di ko wujji summi wut tani de trawaayam waaye waxut lu weddi jëfam jëfut lu weddi ay waxam tabbi ci biir ñaanuk sëriñ Tuubaa googu nga xam ne mën naa ne bu Tarqiyyah ku ci bokk tabbi nga ci biir ñaanuk sëriñ Tuubaa googu ndax sëriñ Tuubaa ay waxam da koy wutal ay seere ba wut noppi wutal ko ay lay waqdi hawaa'ij allazina daamoo fi xidmati wa hablahum maaraamoo waxut ne ki may xëy liggéeyal tey bu subaa mu ne ci boppam waaye ki nga xam ne daa jaayanteek man di ma liggéeyal diiru dundam àdduna ak alaaxira lépp luy ak bëggam Serigne Touba nee na maa ko warloo di ko faj yaakaar naa nag bépp membre nag bu engagé wu ci biir Hizbu Tarqiya boo dee sàmm sàmmoo ngir loo am da ngay sàmm ngir loo jox Serigne Touba soo dee bay bayoo ngir dajale alal da ngay bay ngir jox Serigne Touba boo nekkee ci bureau ba. weer woo fa fayu da nga koo jaayante ngir jox ko Serigne Touba koo xam ne nag loo gën a baax le loo gën a ëpple Serigne Touba nga koy jox kooko Serigne Touba moo yor pajug addunaam ak goog alaaxiram loolu nag adduna bépp mën nañ ma cee seere ne mooy liggéeyu liggéeyub bu Tarxiya mu mel ne seen siyaare bi nga xam ne ñëw ngi tey yaakaar naa ne ku dem ca penku jumaa ji dugg daaray kaamil da fekk ne Serigne Abdoul Ahad bég lool. man yaakaar naa ne sax dana woo sëriñ aatu ak ñam àndal naan leen kaay tey bis bi yéen maa leen di berndeel ndax lan moo ko waral mooy lii garab la goo xam ne sëñ Abdou Lahad moo jëli woon jiw wi ba mu ñëw mu jiyal ko boppam di ko suuxat ba garab googu euh, sax mu di ko suuxat ba garab gi ami reen mu di ko suuxat ba garab gi tàmbalee ami doom mu di ko suuxat ba garab gi doom yi meññ di tàbbi sëriñ Abdou Lahad ne tisaaroo leen ko ci àdduna bi fu ne jëmbat leen fi garab gi ndax garabuk texe la yaakaar naa ne li Hizbut Tarqiyyah dugal ci biir diiney lislaam koo xam ne seytaane gañe woon na ko te bu dee woon te lem nekk sawara la jëm buñ ko dee xool ab lim bu baree bari lay doon waaye bu ñu xoolee li nga xam ne ñoom la Hizbut Tarqiyyah soppi dug soppi leen ay murit nga xam ne doo leen gis ba jaawalee nag lenn loolu danaa ci joxe benn misaal bu gàtt mooy sëriñ Saalihu wax na ne sëriñ tubaa daana wax ne dee leen sol sama col gi ndax kuy sol sama col gi saytaane daf lay daw ni ak tilli di dawee xoral ñu ne ko lan mooy xoral mu ne ko bay sa toolu beref ba mu àgg bant ba nga koy samp ngir mu dàq céeli ya ak ganaar ya nee na loolu moo di ak xoral boo nuroog man ak col nag seytaane du la ñemee membre ya du ngeen ko gisee lu dut ne su ngeen ko séenee da ngay yaakaar ne sëñ Abdou Lahad a ko yar ndax sëñ Abdou tenue de trawaay bi mu engagé woon di ci liggéeyal sëñ Touba daf ne woon bu ma ko summee rek damaa fekk Serigne Touba loolu yaakaar naa ne àdduna seereel na ma ko duñ leen jam ci ak col duñ leen jam ci ay wax duñ leen jam ci jëf waaye duñ leen jam ci seen diggante ak sëriñ bi te loolu bu fekkoon ne Hizbut Tarqiyyah da ko def tàggat ci góor ñi ban man ci cam jigéen ña meluñu noona dañuy wax ne kon kat yéen su ngeen sowee seen bopp it du ngeen sowee waale jigéen ñi waaye amul benn membre Hizbut Tarqiyyah jigéen ja ca bokk te ñemewoo ko yóbbu madinatul munawara te ko ca kanam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na ko filaa lay bàyyi weer te benn jam-jam lislaam ko jam loolu liggéeyub Sëriñ Tuubaa la boo xam ne sun borom jaaleel ne ko ci daara yees bu tarxiya mu mel ne nag siyaare bi euh, sëñ Lamine euh, yéen damay wax ne slogan wu isbu tarxiya mooy li leen sëñ Abdou Lahad joxoñoon inna allaha astara min almuminina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul janna waaye loola lam jur mooy fastabsiroo bi bay'ikum allazi baayaxtum bihi wa ko huwa alfawsul azim te yaakaar naa adduna bi ñiy julleeg ñiy woor ak ñiy natt asakaak ñiy suuf yanki woog ñëpp fawsul azim rek lañ bëggoon loole nag Serigne Touba nee na sunu borom defal na ko ñi nga xam ne ñoo jaayante ak Moustapha sallallahu alayhi wa sallam loolu mu wax ne nag kon ñooñee jaayante woon ñooy seen bàyyi ci diine loolu la waa Hizbut Tarqiyyah jël yaakaar naa ne atum ren buñ ci defee constat jàngat ci li Hizbut Tarqiyyah taxawee dana leen wóor ne ñoom fan lañ mën a jëlee junni buñ xottee mbubb muñ sol dana la jaaxal ndax amu ci kenn koo xam ne ñoom ñii boo demoon ca këram yow ma nekk ci sa kër te bokkoo ci daara ji doo ko dàq ab añ ñu engagé ci université bi na ko jàmbaar ja waxe woon sëriñ Aatu ba ko sëriñ Muntaxa ne këru xasida gi damaa bëgg bu mu weesu juróom fukki million mu ne ko ci téeméeri million la ñuy tàmbalee wuti milliard te duñ la ci sas dara engagement boobu mu jël yaakaar na ne tey jii sëñ Tuubaa fekk na ko ci te ba mu koy jël amul téeméeri junni sotti kon ñu engagé wu di liggéey université bi lu toll noo fay liggéey wëlbatikuwaat sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa na leen weeru koor yi fas bëgg naa ngeen dundal ko na ko sëriñ Tuubaa doon dundale ca njaareem ngir mu wotti lan naqar wa sëñ Tuubaa amoon wala miti wam amoon ca kooru gabon ga ak goog maa yomba ak yam daan woore gànnaar loolu laa bëgg ngeen fayal ko sëñ Tuubaa ci dëkkam bii di Tuubaa Hizbut Tarqiyyah engagé wu ci loolu ak teraanga yeen ca def yépp waaye ñoo gën a sasaat seen bopp yanaat ko luñ attanut ne sëñ taxaw bëgg nañ bu noppee nag ñu defal la ziyaare boo xam ne dañ la koy sante dajalewaat liñ mën lépp ñii da nga naan bu noppee fu ñuy jële dara waaye ku bëgg a woomal te bëgg doo jeexal da ngay booleeg Serigne Touba Xaadimu Rasuul ndax moom du jeexal eh, mu mel ne liggéey bi ngeen di liggéey dafa am yu bari yu ciy feeñ ci waxi Cheikh Abdoul ndax yaakaar naa ne bis na ka tey bu ñu doon xool ci kuréel bi ni ko sëriñ Gànna waxe ne su ëllëgee ba Moustapha sallallahu alayhi wa sallam taxaw yàlla ma ko bindoon taxaw Seydina Jibril mam daan yónni ne jekk doon seerey Moustapha sallallahu alayhi wa sallam buñ bu yonent yépp jógee kenn ku nekk di tiitaroo saw ñoon bu sëriñ Touba xaadimu rasul jógee Moustapha jàpp ci loxoom bi danaan ana kan moo mën a am surga bu mel nii ñëpp dañuy maase na ko kenn mënu ko am yow rek yaa ko mën a am la Serigne Touba tegoon bëtam ngir siggale ko Moustapha ngir delloo ci njukkal yonent bi ngir bu ëllëgee mu di ko damoo loolu yàlla defal na ko Serigne Touba ndam ba kero ba muy génn këram yi kër ya wéet muy batala rakkam ja maam Thierno Ibrahim borom daarul muxti te amul fanweeri ñu tas ay këram Serigne bi wan ginnaaw ak njabootam dem ci géej gi yóbbaalewul kenn liggéeyal fa yàlla liggéey bu tal ne bi mu ko liggéeyal dellusiwaat ñu yóbbu ko gànnaar mu jógee gànnaar dem ci ñetti étapes yi Sëñ Tuubaa am amul benn bu fa murid yi fekk di siyaare ji bu dee Gabon maam Cheikh ko fa fekk ba mu agsee sëriñ Touba ne ko Cheikh looy def si fii daf ko ne mënuma la fee ñàkk fekk te maam Cheikh wax na ne ba may fekk Serigne Touba Gabon bi ma demee ba dugg ci camp bi bâtiment biñ mën na ci la Serigne Touba ne Garga Mbossé gi fi nekk nee na xottiti mbubbi Serigne Touba yi dama ko ci gis mu weex ndax nee na Garga Mbossé gi da koy lonk Serigne tubaa di feex di dem nga xam ne maa ko doon wekkat par benn El Hadj Mun Njaay la wax ne moo doon wekkat yëre yi Serigne Touba yi ba mu àgg sëriñ tubaa ne ko seex mu ne ko mbàkke mu ne ko néeg bi nga ma fekk lind yooyu ci nekk kenn mësu koo bale lépp nañ ko bale te bu mu des ci réew mi nañ ko yóbbaale ca réew ma sottiiti ma yi nga fiy gis mësuma cee sens ak genn folliiti yi lépp def ko ci saaku ma ko sama dëkk boobee di Touba kon siyaare ji woon nañ ko ca Gabon te moo gën a sori bu yàlla dogalee muy gànnaar sëriñ gànna wax na ko gànnaar yaakaar naa ne ziyaareb sëriñ ma siise ndongo doy na sëkk ci ziyaareb isbu tarxiya bii daa nawetoo bay ba mbay ma àgg mu am ca benn dërëm képp ba mu de amee benn dërëm da ko fas sol ta sol dàllam waaxu juuti gànnaar ba mu demee ba gis Serigne tubaa jox ko dërëm boobee ngir ziyaare ji Serigne tubaa yaakaar naa ne loolu ab ziyaare gënu koo métti waaye pas-pas gënu koo rëy te lam ca doon wut mooy li ngeen di wut ci seen ziyaar bi bu dee ci yéen jolof noonu la fa mag ña doon def ku ne xam na ne mag ñi ba la ñoo dem ci yéen jolof dañ daan fay impôt dañ leen di limité ci mbooloo mi ñu fi yóbbu dañuy limité xaalis bi ñu yor. waaye teewut dañ leen daan dóor waaye jaral na leen ko ngir ñu fekk Serigne Touba ca Ceyeen Jolof yaakaar naa ne kon ñett yooyu jafe-jafe ya ca doon am ziar bi mujj ci njaareem te sëñ tubaa kenn mënu ko nax dafa am ku ñuy wax sëñ Ibrahima Kebe Ngiru dafa dajale ay gëléemam def ci ab ziar muy fukki gëléem ak ñaar mu ne mbooloo mi njaambur lañ jóge mu ne yët leen ko sëñ Touba njaareem Serigne Touba xëy ci njaareem ne ndaw yi. gàttandul leen ma jëgg bi jóge njaambur di ñëw su ngeen dikkee fukki gëléem ak ñaar la am na ci gëléem goo xam ne dafa am ab ñaas ba noppi dafa weex gëléem googe sëf ba mu sëf na ngeen ko dindi defal ma ko ci gëléem yi te gëléem googa ngeen bàyyi ko mu dem ndaw yi génn gàttandu sëñ Ibrahima Kebe ay ndawam agsi ñu ne leen yéen fu ngeen jógee ñu ne ko njaambur ñu wàññi gëléem yi muy fukk ak ñaar ñu ne ko ñun kat sëñ Tuubaa moo ñu yónni am nañ ci àll bi ñetti fan nee woon bu ngeen agsee gëléem gii nga xam ne moo weex te am marque sàngam dindi leen ko fab ab sëfam sëf ko gëléem yi te gëléem googu ngeen bàyyi ko mu dem ñu def loola ndax yéen ginnaaw xamu leen ñu te sëriñ bi leen yónni ci moom lan ñu yónni moo leen wax loolu nañ bàyyi gëléem gi mu dem bi yàgsee ci sëriñ tubaa sëriñ tubaa wàcce gëléem ga wàcce ay sëfam ba ñu demee ba sëñ ibrahima kebe siyaare ci sëñ tubaa daf ko ne ibrahima mu ne ko mbàkke mu ne ko jëgg ba agsi na ziyaara ba jot naa ci waaye na ko am na ci gëléem goo xam ne day bëggoon na maa xam noo def ba am ko mu ne ko ah nu mu demee Mbàkke mu ne ko ndaw ya de waxuñu la li ma wax ak ñoom mu ne ko déedéet mu ne ko am na ci gërëm goo xam ne dama leen nañ ko tekke mu dellu goo gee nag nangam la mel ab marka nga ca ma bëggoon a xam noo def ba am ko mu ne ko gëlëm googee de Mbàkke dañ ma ko faye woon am róor sëñ Tuubaa ko loolu laa doon bañ mu dugg ci sama alal kon kooku kenn munta fexe ba jox ko dërëm boo xamante ni leeru digganteem ak boromam su wa taala waaye yaakaar naa ne addiyee is bu tarxiya hmm. sëñ Saaliwu mësu koo wisit sëñ Abdou Lahad mosu koo wisit Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy njëwriñ ju mag yi mosu koo wisit lépp lu Hizbut Tarqiyyah joxe defal na ko sëñ Touba ci dëkkam bii di Touba te yaakaar naa ne nag kenn ku ne war ngaa wut seere sa diggante ak sëñ Touba ci dëkkam Touba bii Hizbut Tarqiyyah bu ñu leen seen seere ñu man ne Serigne Touba dugal ci jumaa ji demal ca daaray Kaamil demal ci kër ku fi ma a nekkal sëñ Touba automatique la eh, señ aatu dama koy laaj na ko kero bi Cheikh Mouhamadou Lamine génnee àdduna yal na yàlla yokk ay leeram jàmbaar ju mag jooju sëriñ tubaa Cheikh Sidi Muxtaar di toog def doon xalif général des mourides damaa gis nga wax ne yëf yi seconde waru koo mat mu ne sa digganteeg sëñ tubaa waroo cee bàyyi seconde fi nga ñàkkit sëriñ fi ko war a amee te ñun duñ fi nekkal kenn ku sëriñ tubaa sëñ Touba la ñuy dàkk ci sees bi ku toog seesu sëñ Touba bi yilif isbu tarxiya yilif mbooloo mi loo wax ñu def ko yaakaar naa ne loolu bu ëllëgee ku fi mas a nekkal sëñ Touba su ko sëñ Touba laajee la ma la santoon nga doon ko liggéey fow nga présenté is bu tarxee na ko ñii ci sama liggéey lañ bokk yaakaar naa ne mënut a ñàkk rawatina ne jàmbaar ji nga xam ne adduna bépp war a mas a mën a ñaan suñ borom guddal aw fanam dolli ak wéram ndax layu sëñ Touba la solution la ci jamono fii mu toll waaye kero ba mu toogee la waxoon ne suñ jataay bii maag yéen xel musta xalaat na dana mas a am loolu mi ngi ko waxee woon daaru manaan xel mu sa xalaat ne maag yéen suñ jataay bi dana mas a am jël engagement ànd ak yéen ci biir ànd googu ak yéen mu wanaat leen ci Serigne Touba moo xamante ni bii gën naa dolli pas-pasub murid yi gën a ba dolli pas-pasub daaray Hizbut Tarqiyyah ñi ñëwoon ci koor bi am na ci ñu jóge bitim réew am na ñoo xam ne wóor na leen ne siyaare bi képp moo leen jaral dagg bee ñëw waaye bu dutoon loolu seenu njaboot jaralu leen ko sëñ Touba nag saa yoo ko defalee loo man mu fayale loo mënut soo ko defalee loo mënut mu fayalu la jomb yàlla na sëñ Touba fayalu luñ jomb ñun mbooleem ñu nekk ci biir Touba waaye ku jóg ngir ñëw ci ziare Hizbut Tarqiyyah bi may ziar nag bu baax suñu doom mu di sëriñ sëy sëñ Seexuna Jaañ sëñ Seexuna maa ngi lay ziar yàlla dafa dogal du ma mën a am sago ci yow ndax sëñ Laminay sa baay sëñ Yuusay sa baay ñiñ bokkal na ci daara ji mooy seen baay waaye damay wax ne yàlla defal na ko loo xam ne taw feex la te li may wax adduna bii mën nañ koo seere kero bi yàlla dogalee soxna moom mi war a ñëw ci loxo sëñ aatu fii la sëñ Abdou Lahad woote ci këram gii yor jukkib alxuraanam di ko jàng woo sëñ Mbay ñang ñoom di leen jàngaloo dajale fi daara is bu tarxee yëpp di leen teral ba ngoon jot mu boole ñoo soxna moom mi def ko ci oto abal ñu oto boppam boole ci ab mbaaram yabal sëñ Mbay ñang ñoom ne leen abal naa leen ñeenti fan bu leen dellusiwaat yaakaar naa nag loolu comme doon sa fondation loo def ci xasida yi rek jaadu jaadu na ñu ngi lay sant di sant sëñ Ablaye jóob sëñ Ablaye engagement sëñ Ablaye noonu woon engagement mooy loo xam ne boo ci duggee doo coo ci génn ba nga engagé bi fi mu ne génnoo yàlla na la sëñ Tuubaa fat ci boppam fataale mbooleem kuréel yi di ñaanaat nag la ma ñaanoon mbooleem membre bu mas a bokk is bu tarxee ñaanaat naa ci doole sëñ Muntaxa yàlla ngeen àndaat dellusiwaat di wenn say liggéeyal sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.